chers jeunes yu enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës cet yëglekaay yi ñu commencé ko Walf Quotidien ministre ci jafe-jafe yi nga xamante ni moo nekk ci président Ousmane Sonko yéenekaay bi duñu xamal ne fi mu toll ñi yaram foo ko natt rek weesu ko li ni mel nag waaye weskat bi xam leen nañ ko niki démb ci seen conférence de presse bi yéenekaay bi ne boo bëggee dégg dëgg donc conférence des leaders amatuñu yaakaar laa la ne président Ousmane Sonko de jamono ji yóbbuwaat nañ ko en réanimation maanaam fi mu toll nii nag caaxaan jeex na source amam ubbi ci xët bu yaatu dellusiwaat ci waxtaan wi nga xamante ni nit ki démb amoon na ci conférence des leaders waaye weskan bi di leeral nag situation yi président Ousmane Sonko nekkee yéenekaay bi na ay dem ba jooy sax laala wax def na ko bi muy nettali ni mu gisee Ousmane Sonko ca lalu hôpital ya Habib Sy moom dafa mujjee sax nag ñàkk yaakaar ndax na nu fekkee Ousmane Sonko noo bokkul ak Sonko bi ñu doon gis subaangoon guddëg bëccëg ci biir yeewi bi ay dem boj di xam ne ci biir yéenekaay bi ne Ousmane Sonko nañu xam xam ne jamono ji wér-gu-yaramam dépendretul ci boppam dépendretul ci ay soxnaam mi ngi dépendre ci état bu Sénégal nañu ko libéré mu dem ñibbi lii moo gën a wóor ndax kii ñu teg bët ni ki dem mu ngi ci beneen état ñun ñi nga xam ne ñoo fa ñëwoon di wax ak moom sax xàmmeewuñu wax dëgg fa yàlla nag ñun waa coalition Yewwi Askan bi réccu nañu sax dem ñu fa dem bu ñu yëgoon laa la wax duñu fa dem ndax la ñu gis nag dalul suñu xel dañu gis nekkul Ousmane Sonko ma ñu mujjee gis moom Ousmane Sonko tamit xàmmeewuñu ba ñu fa duggee ay dëmbu ñaan en tout cas ñun li ñu gisee Ousmane Sonko neexuñu de neexuñu neexul famem te neexul xalif général des Mourides Habib Sy président conférence des leaders moom tamit yokk ci xar mi karaw te bu ñu waxantee dëgg dong nag fi mu nii man amatuma yaakaar toll nañ fi mu nii ci situation boo xam ne lenn kese moo fi solution bi moo dañu libéré Ousmane Sonko dëgg la nag bakkan moom yàllaa ko yor waaye man Habib Sy laa wax man amatuma yaakaar li may sàkku nag ci état Sénégal gii moo dañu ànd xol bu rafet libéré Ousmane Sonko mii waaye tamit yéen ngi en réanimation Vox Populi naan en tout cas Ousmane Sonko médecin personnel am sax laa wax pour mu gis ko problème la yéenekaay bi dalal docteur Amadou Sow di médecin légiste ñu laaj ko nit bu nekkee ci grève de la faim ci ban jamono la ko médecin mën a sauver moom docteur Amadou Sow di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ñëpp xam nañ nekk nekk ci grève de la faim docteur mën na koo bañ a laal bu fekkee ne moom moo ko sàkku maanaam bu dee bu kenn faj kenn amul droit daal koy faj waaye nag ku nekk ci diggante dund ak dee moom xàmmeetul waaw wala déet Ousmane Sonko jamono ji dañ ko war a sauver ndax koo xam ne xàmmeetul sax ay soxnaam ñëw taxaw ci kanamam mënu wax turam kooku mënatu jox ay ordre naan faj leen maag ñàkk leen maa faj lii la docteur Amadou Sow xamle fekk jamono jooju premier ministre Amadou Ba mu ngi xamle ci biir yéenekaay bi ne boroom xam-xam yii doon wax naan état bu dañoo war a président Ousmane Sonko wallaay dañoo xamul état de droit nañu respecté au moins nag sunu justice bii mu def liggéeyam bu noppi nag su boobaa état bu Sénégal mënul def ci li mu gëm bëggëm daal moo di ci état de droit la ñu nekk jamono ji comme que am na ko xamante ni yoon da koo teg loxo nañu bàyyi yoon mu def liggéeyam ba noppi yéenekaay bi ne en tout cas waa conférence des leaders dafa mel ne dañ doon tontu Amadou Ba mii di ko xamal ni xanaa balaa yoon di def liggéeyam prisonnier bi ci boppam laa la wax am mbir gu yaramam xelam mën a dal te jamono ji ki ngeen amal affaire nag nekkatul sax nit ndax mu ngi ci coma maanaam diggante dund ak dee wér gi yaramam tagatémbel lool xàmmeetul kenn kon nag li war jamono ji ba du ñu sauver ba kanam balaa ñu koy àtte ay dëmbul ji def alerte tey xam ne ci biir yéenekaay bi ne ni gis nga bu ñuy négliger laa la wax situation bi Ousmane Sonko nekkee mën nañ ci déggaat leneen loo xamante ni du neex ci xol ndax ñun ñi nga xam ñu yónni woon ba jamono ji ñuy wax ak yéen la wax ki ñu teg bët ay da boo ñëw fi mu tourné c'est pas encore trop tardé nañu sauver Ousmane Sonko ci état de santé bii mu toll lu war a mën a nekk la bib si ne génnee prison bi rek yàlla mooy yor bakkan di rey di dunde waaye fi mu tourné Ousmane Sonko fi mu toll ah ñun ñi ko teg ba demam tiit nanu lu yées nag situation bii mën na dal ci kaw Ousmane Sonko bu fekkee état ba Sénégal gi jéemul gaawantu sauver Ousmane Sonko léegi fa yéene ne xeex bi daal côté bu nekk mu nga yëngatu ndax waa F24 ñoom tamit bàyyiwuñu xeex bi benn yoon fas yéene nañoo jàmmarloo ak nguur gi defar ab mémorandum boo xamante ne nii kilifa diine yépp danañ leen seeti ngir réew mi mën a teguwaat ci état de droit ak justice démocratie ak liberté yéene kaay bi ne waa F24 mu toll ni jugaat nañu dee semaine prochaine laa la wax danañ wàcc ci terrain bi dem nag ba ci représentant yenn ci ay réew maanaam ambassade yi waxtaan ak ñoom xamal leen situation bii réew mi toll ndax li ñu bëgg nag moo di ñu dem ci élection présidentielle yi ci jàmm te situation bii di dessiné wu jamono ji ci réew mi non Sénégal mënta am jàmm ndax dafa nekk ci risque lii quotidien ki nekk ci jàmmam kay bay bëgg a yóotu nag siège président Macky Sall bii moo di Racine Sy ndax fi mu toll nii nee nañu ay militant moom la ñu jox bopp ngir mu daal di nekk candidat ci élection présidentielle yi di ñëw bëgg moo mu nekk candidat ci élection présidentielle yi di ñëw yéenekaay bi ne fi mu toll doon wut signature laa cinquante mille militants nee nañ ko waaw l'Observateur moom dañu nettali mbir bu ñaawto doy waar ca diwaanu Nioro du suufuk Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima mi nga xamante ne nii di ko fi teewal moo di xalif général bu ni mu ngi ca diwaanu Nioro toll ci 603 hectares coowal foncier daal moo mujjee judd njabootu Baye Niass ak conseil des nobles lébu fi nii nag yëf ya moo ngi bëgg ëppi loxo bu ñu ci gaawul jug lu nekk mën na cee xaj direct news moom dalal Doudou Ka mu dellusiwaat ci coow li nekk ci biir ëttu gi déclaration 142 intellectuels yi nga xam ne ñu ngi sàkku ñu laa di libéré mu gën a gaawee candidat wu benn bokk yaakaar yi ni mu bare choix bi président Macky Sall la a def affaire Ousmane Sonko lépp moom Doudou Ka wax na ci tey jàpp nag ne intellectuels yooyu na xamuñ ndax bu ñu xamoon seen bopp duñu toog ba tey jii di wax moom Doudou di laajte ba ñuy attaqué état bu fan lañ nekkoon ba ñuy attaqué Macky Sall yi fan lañ nekkoon bay di ñu nekkoon Doudou xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga li am ci réew mi waaye nag teewul état moom dana def li ko war justice tamit dina def li ko war exiger réhabilitation ex passive wala libération inconditionnelle bu Ousmane Sonko lii moom bés buñ ko defoon nañu jàpp ne sunu réew moom bu yeboo ñu xam ne amatul justice mana la jaratul sax ñuy am justice kon nag nanu bàyyi sunu yoon mu def liggéeyam duudu yemul foofu de ndax wax na ci candidat yi bëri yi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar waaye dafa mel ne daf leen Sall lu mu décider rek ñu ànd ci waaye dem ba koy exiger naan ko ñun dañuy nekk candidat par force ñaawlu na ko moom Doudou Ka ba fu ñaawlu yem Doudou Ka di xam la ci biir yéeni kaay bi ne gis nga Sénégal émergent nekkul gént de ay réalité la te dina am nag ci réew mi sans Ousmane Sonko sans Pastef man nag yéene wu ko lu ñaaw yéene wu ma ko waaye nag danañ xam ne Sénégal gii réewug démocratie la réewug yoon la te yoon dina def liggéeyam grève de la faim nag képp ku ko def yaa ngi tay la sa bakkan loo ci góobee rek fexeel yow nga gar ko ay <laughs> Doudou Ka Ousmane Sonko a ah, baax na yéen ak jàmm bokk yi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 gaawal rek jokkoo ak pharmacie Al Maktoum yow mi tëlee amee faiblesse sexuelle doxal nànk dem ba ci pharmacie Al Maktoum solution bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits am disponible na partout au Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk ci Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne ak Barcelone jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro téléphone am di plus 34 602 11 12 28. yéen ñi nekkee ci Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum te kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum.